asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu waa diaspora maa ngi leen di nuyu waa États-Unis New York maa ngi nuyu ñëpp sama xarit yi sama fans yi may bége man ami Niang Géwél maa leen di nuyu di leen présenter seen émission émission bi nag cosaanu démb cosaanu démb nag soo ko déggee limbu wundu bari na bi passé ñu ngi loon doon waxtaanal ci leket tey nag danoo ñëw ci sëru njaago njaago nag ñetti tur la am na rabal sëru dënk sëru njaago ndax lépp cosaan la soo déggee nag ñu ne cosaanu démb sunu yaay ya sunu maam yi danoo fonkoon njaago sëru njaago waxuma la nga muur ko sa doom mbaa nga sànge ko ko jëlal sëru dënk bi di njaago dugal ko sa biir batan denc ko sa biir almowaar gàllaaj la waxantumaa nag nga am bébé njëkk koo sëru njaago dina am qualité dina am quantité dina am valeur dina riis dina doon noble ndax seru dënk bii koo ko sànge valeur lay am noble lay am moo tax suñu yaay yi doom bu juddoo bala ñu lay def dara dañ lay laxas sëru njaago njaago na tubaarkàlla macha allah li mu man bari na njariñam bari na tey bu ñu la muuree di la jox sa jëkkër sëru njaago la lay sànge muur la ko dugal la sa biir néegu jëkkër bu la yàlla defee nga sa ñu jox la sa jëkkër tubaarkàlla macha allah ñun géwél ñoo koy wax liñ ñaan dalalam njoor sàngalam njoor nga joxe fi deret yaaram sëru njaago lan lay sànge bàjjen ñëw tubaarkàlla macha allah sànge la njaago mu kontaan lool ñu xam ne kon njaago am na njariñ gàllaaj la ci doom gàllaaj la ci néeg gàllaaj la ci sëy tubaarkàlla macha allah sunu maam yi dañ daan def bu nu sañsee ba jekk buñ daan def seeni gumbe dañuy woddoo ñetti sër lañ ciy def dañuy jël ñetti sëri njaago woddoo ko def seeni maraakis jongama lool tubaarkàlla macha allah def seeni nguuka sunu yaay ak sunu maam yi mu jongama lool ndax cosaan dafa neex ku ne xam na ni sëru dënk xoola sër bi lépp a ngi ci biir valeur bi ci nekk njariñ li ci nekk njaago mën nga koo def yére am na ñoo xam ne sama mbokki joolaayu dañuy jël sëru njaago def ko sër def sol t-shirt wala ñu def ko robb bu ñu amee mariage seen aada njaago la ñuy njëkk a sol njaaga la ñuy njëkk a sol bu ñu demee salon seen première sol njaago lay doon ndax seen aada la cosaan la ku ne xam na ni cosaan démb la njaago la ñuy ñëw ba mu rafet def ci sër def ci écharpe def ci mbusóor mu jekk lool tubarkàlla macha allah kon xam nga ni cosaan démb dafa neex ñu bëgg nañu dellu siwaat ko nañ delloo si waat njaago di ko dugal seen biir yi nekk jeeg bi sëy ubbi sa almuwaar jënd njaago dugal ca biir dara du la bett tey ji bu sa doom duggee néegu góor bu demee ba ñëw bu la neex jël njaago lalal ko mu toog ci mbaa jël njaago teg ko ci kaw kii la njaago bii mooy gàllaaj ku ne xam ne ni njaago valeur la tubaarkàlla macha allah ndax ku ne xam ne ni njaago am na njariñ ji nga suñu mbokk alpulaar sen teddu ngal yooyu ñuy def bu ñu bébé njaago la ñu njëkk ci biir ji nga seen góor ñi sax paayi koo ci gis day jël njaago def ko yére sabador bu baax def pos bu mag man dama ko daan gis ci sama ñoom mam. ak sama papa dama daan gis mu ñaw lii njaago def ko garambu bu bu tuuru ba ca suuf def ci pos bu mag ci dënn bi manan kan wa papa li nga sol dafa rafet mu ne ma njaago dafa riis te ñun danoo bàyyi loolu dañ koo bàyyi sama mbokki séeréer yi ak ñoo fonk njaago ku ne xam na ni njaago am na njariñ dañ koo fonk bu ñu amee seen programme yooyu njaago la ñuy njëkk a jënd bañ nañ ko ba sax seen seen programme bu ñu manti def sëru njaago la ñuy jënd dinañ ko def ci seen euh, sëru rabal di nañ ko def nii seen yére ak sër musóor moom la ñuy njëkk a def dinañ ko def ci seen i néeg yenn saa dangay dugg ci néeg fekk nu jël sëru njaago def ko nii ràbb ko ràbb ba mu baax ñu def yenn saa yi ñëw fekk ñu defar ko ba mu baax teg ko ci seen lal balaa ñuy muur seen doom tey nag buñu la nee dañ lay takk di la muur ngay sëyi seen aada njaago lañ lay njëkk a defal comme ñun rek waaye xam nga ñoom danoo fonk cosaan te cosaan dafa am njariñ li nga sëru njaago bi man na laa liggéeyal loo xam ne tubaarkàlla macha allah mën nga cee am mbubb mën nga cee am complet danga koy dugal sa biir almuwaar bàyyi ko fa gàllaaj la même boo ko xaful sax jëlal sëru njaago bii rek comme nii nii dënk bi dugal sa biir almuwaar gàllaaj la sama ñoom yaay dama daan dégg ñu naan yow amoon sëru njaago ma ni leen ah man de aw ko ñu ni ma fexe wut ko wutal sëru njaago jeeg buy sëy dugalal njaago sa biir almuwaar parce que gàllaaj la ñi nga xam ne dañuy bëre ji dem ci arène ba sama mbokku séeréer yi sëru njaago la ñuy bopp la ñuy njëkk a def yére boole ko ci li ñuy sol wala ñu boole ko ci li ñuy ngemboo xam nga lu tax ñuy def loolu pour am ndam yenn saa yi nga dem ci làmb séeréer jii tey ca arène ba fekk mbër mu ñëw ngemb di bëre boole na njaago ca la muy def mbaa mu jël ko ñaw ko yére faaru mbaam lii lañ koy ñawee ndax kalla macha allah mbër mu ko jël nag def ko ah man dembër yi ma ci gis ñu di ko utiliser ndam rek ku ci am mbër ah jëlal njaago yenn saay sax da ngay toog nit ñëw soxla ko pour bëgg nga ko ko ndax gàllaaj la mënoo def lu ne lu ne lu ne ca boole woo ci sëriñ njaago mënoo def benn gàllaaj ca boole woo ci sëriñ njaago ndax cosaan la li ñu waral ñu naan tubaarkàlla macha allah cosaanu démb lii mooy cosaanu démb maa ngi woo sama waaj mbokk jigéen ñi na ñëpp jënd njaago chaque émission nag tubaarkàlla macha allah dañuy dem seeti suñu benn yaay nag mu waxtaanu nag ci démb ci cosaan ndax suñu yaay yeeg suñu maam yi nag ñoo xam cosaan ñoo ngi dem seeti suñu yaay nag mu waxtaanal nu nag wax nu lan mooy njariñu sëriñ njaago waa asalaamaaleykum sama gaay yi maa ngi leen di nuyu ba tey rek ñu ngi seen émission cosaanu démb waa nag dañoo ñëwoon fii seeti suñu benn yaay ndax sunu yaay yi nag ñoo xam démb ñoo xam cosaan loo xam démb sunu yaay gën ñu koo xam mu se def ni sëru njaagoom sàngoo léegi nag ñu bëgg nag mu wax nu tuuti nag lu mu xam ci njariñu njaago ba def ko nii sàngoo ko mu rafet ba dee yaay tubaarkàlla macha allah yaay ñoo ngi lay nuyu maa ngi leen di sama doom ji ami ñang di def émission cosaan yàlla doonu émission yu baree baree bari ci moom ndax xale bu am ñam la xale bu yaru xale bu am taraanga xale bu am sutura ngeen di laaj tamit lu am solo cosaan ñun nag suma maam yi ñu xamoon man li ma fekke woon ci ñoom awaa njaago du ñëw sëru puqe lañ amoon ndax puqe bii ñuy ci takkal xale yi tey xam naa ñu bari xamuñu puqe moom lañ daan ràbb sër waaye lan mooy poqe man de pour man njaago moo am ak sëru rabal ak sëru dënk man de loolu laa xam ci suñuy maam kon njaago am na poqe poqe mooy fàlle fàlle yi kii jaay malien yi ci leget yi marché ñu ko def poqe di ko takkal xale yi bu njëkk si xam nga mag ñi amuñu woon loolu moom lañ doon def sër di ko ràbbe ci lañ ñu boot bu njëkk sëru poqe moo amoon bi ñu jegee ci poqe ñu def seru dënk seru dënk mooy tànku pitax ak lakku tiwaawan man sama yaay ñoom loolu lañ dajeloon man xam naa loolu moom ginnaaw bi nag njaago moom léegi la mais bi puqe bi paasee tànku pitax ak lakku tiwaawan moom lañ daan ràbb moo nekkoon sér biñ ci jógee nag ñu naan séru njaago la njaago yi ñëw ràbb njaago waaye njaago jëkkewul woon léegi si la njaago ñëw waaye sér nag am na solo njaago comme boobu passé na bii génn léegi miscération bii di njaago am na solo ndax maara day taali booy sàng néew sëru njaago nga koy sànge booy booy lii booy eh, tënj sëru njaago lañ lay muure boo génnee àdduna sëru njaago lañ lay muure booy muur séet sëru njaago lañ lay muure kon sëru njaago baax na aada la sunu aada ndax suñuy maam ba ne ñu ngi ànd ak ñun suñuy maam foo leen fekkoon ñun gone tey ñoo ko deful mais suñu maam foo leen fekkoon ñu ngi am sëru dënk seen gaal ñuy wax sëru gaal ndax yi ma lim yëpp ci sër lañ koy def waaw suñuy maam loolu lañ fekke woon nag man lool nag laa xam ci njariñu sër xam naa daal booy muur seet njaaga nga koy muure bu amee doom njaaga nga koy muure boo koy tudd bu néew bu nit génnee àdduna njaaga nga koy sànge bu nit génnee àdduna jabar ja njaago lañ koy muure mu ténc man loolu xam naa ko ci seenu njaago waaye nag njaago jëkkewul woon tax suñu maam yi ak sunu yaay yi fonk sëru njaago ba sax néeg boo dugg almuwaar boo ubbi njaago baay wadd ci suuf lu ñu mën a jënd dañ ciy boole sëru njaago waaye yaay lan moo waral loolu secret njaago boobu lan la gàllaaj la ci kër ndax dégg nga ñu ni Sénégal mag ñu jëkk ñi Sénégal lañ daan wax léegi tey armoire yi la ñuy def boo duyee sa taatu armoire ci ngay lem sa sër dugal ko ci taatu armoire loolu moo tax muy gàllaaju kër moo tax sëru njaago baax ndax ku àdduna dañ naan ana sëru njaago soo ko amul yow da ngay dem sa mbokk jox la wala nga àbbi ko kon sëru njaago am na solo gàllal la daal ni ma ko wala caayaa nga jënd ko nag def ko ci sa biir néeg ndax mënuñu koo ñàkk buñ la muuree jox la sa jëkkër ngay sëyi waa ñu lay jox sa jëkkër ngay bu buñ la takkee ba jébbale sa jëkkër sax sëriñ njaago lañ lay sàng sa bàjjen jamono yi sa bàjjen day ñëw indi sëriñ njaago sànge la ko sooy sëyi sëriñ njaago boobu lañ lay muure moo tax sëriñ njaago sër gàllaaj la bu seet lu jotee ma jël sama sër rek sàngoo moo tax sëriñ njaago baax léegi bi may dugg ci kër gi dama ne tëll ci kër gi yem ci soxna may Mbàkke mu sañ sa ba rafet sàngoo sëriñ njaago mu rafet lool ma kontaan bay bëgg dé sama xol sédd ma gessu fekk sama yaay def Sanggu sangu sœur bu rafet bi sœur bu tar bi sha allah yaay dama doon wax ni loy digal sama moromu jégg ji. sama moromu jégg yi li ma leen di digal xale tey fonk ñu sër ndax ko ci dem tay bo né tudd bu la sa yaay joxul sër wala sa mag jox la sër amo sër te sër dafa jara fonk ndax lo mëna def ci aduna ci yépp ci sëru lañ koy def. soxna may mu sell mi Serigne Ndiago rek la daan muuroo du muuroo xol foo ko fekk Serigne Ndiago lay muuroo bàllaay sa buri sëñ Mbatta rek lay muuroo kon nga ne tey li ma leen di conseil pour leen Serigne Ndiago def ci seen taatu armoire mag ñi seen Serigne Ndiago lañu daan def seen taatu gaal mënoon naa gaal léegi nag ñun gone yéen gone tey jël leen Serigne Ndiago ngeen def seen armoire yi maara day taal bu amee ngeen génne bu seen doom di sëyi ngeen génne lu mu mënta doon bu ngeen di tudd doom ngeen génne ndax gone tey amu leen ko bu ngeen ni sama yaay dina indi sër bàjjan ba bu indi sër du ngeen am sër kon fonk leen ko sër yi ñu ngi koy nat ñu ngi koy jaay foo dem sër yaa nga fa fonk leen sëru njaago ndax sëru njaago la gàllaaj la ci kër may tàggatoo daal mooy di sant di gërëm sama doom ju baax ji yal na ko yàlla defal jàmm defal ko taraanga may ko fan mu gudd sàmm ko sàmm njabootam. gis ngeen sama yaay ju ñu seeti léegi lim ñu waxal ci sëru njaago qualité yi ci lim. man de damaa defe ne woon njaago sëru dënk rek ngay wax mbaa sëru rabal ndekete njaago am na ay poqat am na lépp moo tax tubaarkaal la ñu delloo si waat cosaan ndax man mii kat lii mu wax xaw ma ko de man njaago kat dël rek ràbb laa ca xam dem ca njaago ba mu ràbbal la sër nga sàngoo waaye lii sama yaay wax léegi ci sëru njaago man xaw ma ko ci ca maa ngi dégg moo tax billaay mag mat naa ba cim réew xam ngeen cosaan dafa neex sunu yaay yi nag danoo fonk cosaan de ñun ñi ñoo font nag fonk ni cosaan mais suñu yaay yi toog danoo fonk cosaan nañu fonk sëru njaago nañu fonk cosaan cosaan dafa neex sama yaay ji tubaarkàlla macha allah kontaan nañ kàddu yi rafet na lool wax na lu rafet sëru njaago parce que nag suñu yaay yi ñoo xam cosaan sunu maam yi ñoo xam cosaan ndax ku ne xam na ni cosaan démb la ndaxte sëru njaago ku ne xam na ni cosaan la maa ngi leen di ñaax nag sama mbokku jigéen ñi na ñëpp jël sëru njaago ku ubbi abbi sa batan na njaago ba wadd jëndal sëru njaago dugal sa batan bu la dara bett bu la seet bett bu la wasin bett bu la muur sa doom sa jab sa doom mu dem euh, sëyi muur sa doom jox ko jëkkëram bu mu la bett maa leen di jox dig daje nag chaque 15 jours fii lay xewee te Actu 7 News ci seen émission cosaanu démb Thank you.